non su ma la déggee mooy voté nga troisième mandat vous nous ramenez à des débats yoo xam ni vraiment des débats futiles parce que ça honnêtement comme ni mu wax c'est pas le débat c'est pas le sujet aujourd'hui mm-hmm. le sujet c'est aujourd'hui le le le l'emploi des jeunes l'insertion mm-hmm. mais une prise en charge optimale vraiment des préoccupations des Sénégalais au quotidien et sama laaj aussi vous savez moi man njaboot laa du ma weesu njaboot man ci politique njabootu président Idrissa Seck la. Mhm. président Idrissa Seck moom moo waxtaan ak président Macky Sall ba ñu dégg ba tënk. te tey njabootu président Macky Sall ngeen tey. oui mhm. ba tax na luñ ci tënk rek. Mhm. man ci laay topp. njaboot laa du ma weesu njaboot par looy président Macky Sall nee na jarul débat. duma ci débat d'accord mais mais monsieur le ministre mburoog soow ngeen fii ci Ndakaaru mais